moom am na lu ko ci jotoon a dal euh, ca benn village bi ñuy woowee Dugar demoon na fa ñu daal di koy maltraité ba mu mujjoon dem hôpital ak lépp waaye kàddu yi nga xamante ni moom la ci yëkkati mooy ñu bari ñoo ngi financé euh, li nga ni moom moo di élection euh, présidentielle yi campagne législative yi locale yi lépp ñoo ngi ko jëlee ci alalu foncier yi maanaam daal moom la ñuy njuuj ndaaj ba mën a am seen ay financement wu élection waaw mu mel ni daal maanaam élection bu jotee moom lu ci mel ni maire yeeg ñeneen ak ñeneen ba

ne waaye lenn rek la wax nee na Macky Sall euh, dafa war a jël noppam yi ubbi ko attentivement askan bi daal di wax ak moom comme ni mu ko defee woon ginnaaw ba émetu mois de mars bi amee ci affaire Adji Sarr ak Ousmane Sonko en tout cas li wér te mooy nee na euh, kii nii euh, kii nii di Ablaye Faye moom nee na société boobu ñuy woowee Peacock Investissement dafa war a mën a génne teere daal di koy teg sur la table wala mu daal di réunir nit ñi wax ak ñoom loo xamante ne war nañ koo mën a dégg. war ko mën a dégg mu mel nag Amina Ndiaye

war a mën a génn waaye parquet bi daal dinay indiwaat ay réforme euh, proposé ko waa gv ngir ñu xool naka la ñuy amalee loolee

associé am daal ne du posé waat euh, candidature am. du posé waat candidature am dafa fas yéene bàyyi foofee démb la daal di dajaloo ak ñoom wax leen ko mu nekk annonce boo xamante ni nag metti woon nañu baree baree bare ñu ci bari xaaruñu woon ni day dem ndax gis nañu liggéey bi nga xamante liggéey na ko fii ak euh, ni ñu nekkee woon en famille di liggéey di jëm ca kanam waaye Sayer Seck moom moo jël décision bi daal di tàggatoo ak ay collaborateurs am. Pathé Sylla wala nga ne Pathé Prési Mo Gates moom nag li ñuy xam li muy xam rek si biir Mo Gates daal pare

mel nag maanaam tey Liverpool moom maanaam tey euh, dafa war a dafa mel Liverpool pot croire à la C1 Amina Dia mel ni maanaam ñoom nag ginnaaw bi nga xamante rek qualifié nañ te seen gardien bi mën nañ ne moo tax ñu qualifié moom euh, euh, waruñoo rater seen match bi ñu am fële na ci diwaanu Burnley loolu nag moo leen di permettre ñu mën a dugg au fond ci li nga xamante moom moo di C1 bi. ci c Coupe de France finale bi PSG Monaco revanche lay nekk pour PSG wala confirmation pour Monaco. revanche wala confirmation pour Monaco ndax gis nañu seen match. aller bi euh, Monaco moom moo dooroon waa Paris Saint-Germain ci coupe France bi en tout cas match bi dañ ko amalaatal ñu xool ba xam euh, Paris Saint-Germain euh, day jël revanche am Monaco day daal di mën bi mu leen mën. Coupe d'Italie finale bi Amina Ndiaye tey la à 19h mu mel ne nag Juventus à l'assaut de tey muy coupe Italie bi. waaw nag yaakaar naa ne tey nag Amina Ndiaye war na wane preuve am rek ñi gars yi naan dafa màgget am màggetul yaakaar naa ne tey moom xëy na dina si l' état à la justice wala wala l' état face à la justice internationale lay wax ak Amina Ndiaye si maanaam mbirum pétrole dossier yi nga xamante ni tey moo di moo di moo di moo di Barrick Gold centrale de Sendou ak yeneen ak yeneen dafa mel ni jamono ji nag moom maanaam bitim réew wala tey euh, euh, justice internationale la ak état bi. waaw gisoon nañ fi société yoo xamante ni dañ doon liggéey ci wàllum or nee nañu nag nekk ñu woon ci yoon ba tax na am na benn njiit ci ñoom boo xamante ni yoon tegoon na ko loxo commencé woon duñ amal enquête ci moom dossier boobee euh, nga xamante ni nag Barrick Gold moom moom moom société ba leeraloon na bu baax que ni moom li muy def dafa légal waaye l' état face à la justice internationale ngir xool ba xam moom bari Gold fi nga xamante ni fa lay jëlee or bi di ko indi fii ci yeneen ak yeneen dëkk nekk na lu négatif am en tout cas impact négatif am na ko ci signature pays bu Sénégal euh, li nga xamante ni nag moom moo di agent judiciaire état yi daal dinañuy poser trois plaintes. daal dinañuy poser trois plaintes Amina Ndiaye ba léegi rek France Afrique le New Deal le New Deal Amina Ndiaye de Paris mu mel ne nag le chef de l'État les axes à la de la dynamique novatrice et le plan Marshall pour le continent mu mel ne maanaam tey affaire maanaam. Euh, euh, njeexital gi Afrique war a am tey si wàllu économie économique am Amina Ndiaye ñu defee kon fële France ak Sénégal mu nekk recto verse boo xamante ni mënuñu leen a séparer pour le moment ndax gis nañ ni suñu juum réew saa bu xëyee mi ngi am ay accords yoo xamante ni mi ngi koy signé ak français yi France tamit saa bu ñu xëyee ñoo ngi am intérêt ci Afrique ba tax na daal nee nañu la New Deal de Paris jëmale ko ci li nga xamante ni moom moo di wàllum koom-koom bi. wàllum maanaam dañ ko raté dañ ko daal di reporté euh, organisé nañ ko ñaari yoon daal di koy reporté ca diwaanu Linguère la xew woon hôpital ba ñeenti bébé ñoom ñoo fa ñàkkoon seen bakkan sans compter ñi nga xamante ñoom ñoo ci amoon ay blessure lu wér te mooy enquête bi ñoo koy ñoo te loolu fas ñu ko yéene tëj tëj euh, ki nga xamante moom moo di directeur directeur ba nag Abdoulaye Diouf Sarr duutoon baaraamu tuuma ndax jàpp nañu ba ñu amee ay jafe-jafe ci hôpital bi ba tey euh, mosuñoo jóg benn yoon si di ko réclamer yenn ci matériel yi wala ñu koy euh, réclamer pour mu réfectionner euh, yenn ci bërëb yi moom moo leen wuyuwul woon mu nekk loo xamante ne atum 2015 la woon ba suñu joon yàlla tey ji donc daal buñ ko auditionné dinañu gën a xam li nga xamante ni moom moo di mbir mi fan la jóge waaw mbirum santé moom maanaam tey mbirum wërgu yaram ak mbirum jàng moom Amina Ndiaye ko négliger maanaam tey kenn du ko sàggane ba tey rek Amina Ndiaye mu mel si affaire bi nga xamante ko nag ñu mu ñu ñu ko ba pare ko ci ab foos Amina na ay fan ñu koy seet gisuñu ko ba bañ ko gisee démb euh, bi nga xamante ni moom moo ko téye woon wala saay-saay yi nga xamante ni ñoom ñoo ko téye woon euh, dafa mel ni dañ koo sàkk woon ba pare nag daal di takk loxo yi takk gémmin gi euh, bande li nga xamante ni moom moo di ay bëtam ginnaaw ba ñu ubbee ubbee ab am na kenn koo xamante ni nañ ko loxo ci suspect yi nee nañu daal euh, dinañ ko auditionné ba pare soog a siiwal li nga xamante moom moo di euh, discours am. Tapha Tine le grand Amina Ndiaye mu mel ne nag moom nag jamono ji nag ki su mel ni Gaston Mbengue mu ngi séddale ay millions nga si mbëri waaye dafa mel ne Tapha moom fi mu di Tapha am na combat ak euh, ki nga xamante moom moo di Boy Niang suma juumul combat boo xamante ni journal bu ne Gaston Mbengue da koo fàtte journalu suñu làmb dina wax leneen ndax nee ñu ngi koy bëgg wutal combat digganteem ak Bombardier waaw ñu ngi koy bëgg wutal combat digganteem ak Bombardier Amina mu nekk ay yoo xamante ne na ko ci nouvel album bi nga xamante moom la génn di waxaat ak jeunesse sénégalaise bi. ak jeunesse sénégalaise bi Amina Ndiaye ba léegi rek les vérités de Macky Sall aux puissances occidentales mu mel ni nag aux puissances occidentales mu mel ni ba léegi rek yéen jàppar naa ne affaire New Deal bi daal Amina Ndiaye si journal yi di wax las ko nag moo si ñëw Amina di si waxaat. ba tey ci wàllum koom-koom la diggante Sénégal ak France nekk yeneen a signé seen euh, ak ak juróom-benn fukk Amina Ndiaye moom la état bi jël rek déclenché ko rek

de fay caution. maire Bafoutou moom la docteur Kassé def Amina Ndiaye moom nag nekk cancérologue li mu li koy li mu naqar mooy que ne consul Belgique bi nekk Dakar maanaam bi ñu refusé visa koo xamante Amina Ndiaye ko feebar la ñu waroon ko dem faji Belgique ñu refusé ko li nga xamante moo di visa Amina Ndiaye. cas d' boo xamante kenn waru ko refusé eh, koo xamante dafa am cancer dem di ñaan visa. Euh, ci consul euh, bu Belgique ñu daal di ko koy refusé loolu moom moo waral nag docteur Kassé daal di génn di wane naqar ak tiisam waaye mi ngi avertir nag ni kooku lu ko dal rek na jàpp ni consulat bu France bi moom mooy responsable. consulat bu Belgique bi Amina Ndiaye mooy responsable bi fële nga bi nga xamante ni ni wàllu jur waa dëkk ba nag jàpp ne maanaam tey force de sécurité dañ bokk complice tax na nag ñu mer ba fut Amina Ndiaye lakk lépp lu ne seen kanam. gis nañu li ñuy sàcc foofu noonu ay bétail bari na lool waaye dañoo jàpp ni force de l'ordre ya fa nekk waroon a assurer euh, sécurité bi ñoom ñoo bokk ci complicité yi looloo waral éleveurs yi daal di jóg rekk ak seen maire révolté wu daal di euh, lakk lépp loo xamante ni moom moo fa nekkoon euh, te nee na ñu tànk arrêté wuñu loolu daal nii la ñuy dëkk ndax mënuñu dëkk ci di golo di bay baabu di dundee baabu di dundee Amina Ndiaye ba léegi rek mbay booy coach B52 bu Mbour moom nag moom mooy wax rek jàpp na ne jiney Balla Gaye ji moom dañoo ragal ki nga xamante ni tey moo di Bombardier comme ni nga ko waxee rek Boucar Ndour journalu suñu làmb daal dinay bind ni mbay mbay booy nekk coach B52 bu Mbour jàpp na ni Jinne Balla Gaye ci jëmmi boppam ñoom ñoo ragal Bombardier donc nekk na combat boo xamante ni Balla bu deful nànk rek par la force Bombardier da koy daan ndax min na ko min na ay jinneem te cay jim say jinne moom ku mu ñemewul doo ko namee ñemee songo doo ko ñemee songo ba tax na rek jàpp na ne Aziz Ndiaye moom maanaam moo ko yokk fit ëllëgee sax xalaatul song Bombardier wala mënul ci Bombardier dara Amina waaw Aziz Ndiaye jàpp na ne Aziz Ndiaye moom moo nekk bras droit am moom moo koy yokk mystique ba mu mën a dëgëroo dugg ci biir arène bi waaye bu nekkoon Balla ak Balla Gaye bu taxawee jàkkaarloo ak Bombardier bu Bombardier waxee sax du tontu revanche démarché par Gaston Mbengue Amina Ndiaye mu mel ne Tapha Tine nag biñ journal waxoon ne xëy na dañ ko fàtte Gaston Mbengue fàtte ko benn yoon parce que mu ngi koy démarché pour revanche am ak Bombardier waaye dafa jàpp nañ ne daal est ce que bu nekkul ne Bombardier moo ko war a ragal Tapha Tine Amina Ndiaye comme ni ma la ko waxee woon ci journal l'Observateur rek dañ ne woon Gaston Mbengue dafa fàtte Tapha Tine ci liste lutteurs yi nga xamante ne ñoom lay tëggal combat ci saison bi waaye euh, journal suñu làmb daal dina koy wedde ba mu set wee ci nee na euh, kii nii di Gaston Mbengue ci làmb ni boppam nee na démarché na digganteem ak Bombardier Tapha Tine pare na ok na pour janoo ak Bombardier waaye dafa mel ni Bombardier nag moom moo ragal ki nga xamante ni moo di Tapha loolu Gaston Mbengue daal di waa Kaolack moom euh, sélectionné nañ cinq mbër yoo xamante ni ñoo ca war a bokk ku ci mel ni sëlëmale dinañ ko fekk ci biir compétition ba waaw ko yaakaar naa ne Kaffrine tamit tey la ñu war a def seen sélection Amina Ndiaye kon maa ngi lay jaajëfal rek di la naan bonne journée. bonne journée Boucar Ndour